lu yoo philosophe la di analyste politique ñing lay dalal bu baax ci GTV ci xabar yi. waaw maa lay nuyu di la fay di nuyu également l'ensemble des téléspectateurs. Hum, euh bokku na ci laataa ñu sóobu ci waxtaan yi élément bi jall na ci biir xibaar yi université daanaka ubbiwaat na euh, jamono ji gis nañ li fi jotona xew ba jall euh, bu ñu sukkandikoo ci euh, li nga xanti mom moo xeexoo yi jotoon université danaka boy xol lu ci ëpp laj nañ ko ci ay at yo xamante ni mënees na ko waroon a mën euh, ci sa xam-xam sa jangat naka nga lan nga jàpp ne warees na ko def ba lu mel dal ñu meun diko ko maytundi bu baax. waaw euh, lolu vraiment du lo xamanteni man luma ma bett la. Mhm. xam nga aussi université euh, si aduna bi yep han ah, du sax dañuy wax rek université de Dakar mais si aduna bi yep la. ndax étudiant yi tamit dañoo am ñomit luñuy wax ay passe-passe politique eh, du étudiant yi rek mais enseignant yi également donc bu ko defee réew booy xool réew yu bëre révolution yi am yëpp boy boy xol ci walu histoire mi ngi tambalé ci université yi dama lay jox rek lu su mel ay Amérique latine nga xamanteni étudiant étudiants Mexico yi hein, joué nañ fa benn rôle bu mak ci révolution yo xamanteni amna am na fa. Mm-hmm. Euh, mais également boo jëlee France en 1968. grève bi déclenché wu en France ba nga xamanteni mo dem ba Daniel général de Gaulle. Mm-hmm. nga xamanteni ni na ci nguur gi amone fa vraiment euh nekkoon général aussi armée nga xamanteni rigueur la doon démé ci biir pouvoir bi. mais mm-hmm. étudiant yi bu ñu jógee le vingt le vingt mars.

ñu xam vraiment fii ci milieu mi étudiant à l'époque en France ñëw mmh. dellu soit fii Sénégal indi fi xeex bi mmh. ak yeneen étudiant mu dem ba finalement dur euh, chou mag fii Sénégal ba am ñu bëre ñoo xamante ni perte nañu mmh. donc du c'est pas une surprise euh, yàgg na effectivement ci université yi yàgg nañu gis à chaque fois bu coow politique amee si dëkk bi étudiants ici à si am taxawaay bu mat sëkk loolu moo indiwoon sax département philosophie tëj département sociologie en 1968 donc gis nga lu mel non aussi euh, nguur gi daf koy ba tax jamono ji ah, aussi bi politique bi hmm? non philosophie ni effectivement. Ah, euh, l'enseignement ci réflexion wax ci l'enseignement de la subversion. Mhm. Euh, c'est des pensées subversives mhm. souvent mi euh, am cosaan ci université yi. Mhm. si euh, particulièrement mhm. ci diggante sociologie yi ak philosophie yi. Mhm. ñoom la ñuy considérer sax comme les étudiants les plus dangereux. étudiant bon mais loolu aussi ay ay wax la rek. ndax tamit ñooy stratégie ñooy teg plan yi. waaw ñooy teg plan yi ñoom ñooy ñaxtu ñoom ñooy taal dëkk bi comme <laughs> comme ni ñu wax mais c'est pas vrai. Uh-huh. Euh, philosophe ak sociologue yi donc mm-hmm. dañuy xam seen ak ak yelleef dañuy xam mm-hmm. lu ñuy wax la justice sociale. dama mm-hmm. xamul naka la koy tekkee ci wolof. mooy maanaam fexe ba ñëpp doon benn. dañuy bëgg aussi li ñuy wax liberté liberté d'expression ni ñuy mën exprimer wu. Mhm. donc euh, si si département yoy duñ koy enseigner. Mhm. lu bëre. Mhm. motax souvent nguur gi xaw ragal lepp luy euh, mbiru étudiant. parce que rawti nak ñooñu ñi mëna a légui léegi. ñi nga xamante souvent ñom la considérer comme ñi nga xamante ñom ñoy tal wala ñom ñoy pousse yenn étudiants effectivement ci xeex beeg affaire yoy donc du vraiment lu ñu bett. Euh, moo tax d'ailleurs lu fekk ñu tëj ko. C'est pour calmer une partie de la population, mais nous nañu mhm. que les idées sont bien répandues dans la mhm. population et que toute université rek taxul dëkk bi mhm. analyste politique philosophe ñom ñaar nak nga ko Mhm. bon amul différence bu rëy hein parce mhm. que boy def euh, philosophie ak politique danaka danaka c'est presque la même chose manam mhm. yeb ben la. Euh, boy jàng philosophie lu si gën bëri ay pensées politique la ñay jàngal. xamna ni da ngay dégg ku ñu wax Machiavel ñoo ñep c'était des philosophes ku ñu wax Karl Marx. donc philosophie dañu mës am taxway ci walu politique. bu rew mo dem constitution yi ñu wax yëpp ay walu droit ak yooyu en réalité ça vient de la philosophie. philosophie ñoo créé droit. ñoom ñoo créé économie ñom ñoy créé sax euh, vraiment. presque mën nañ ne discipline Mhm. donc lu politique ça mi ngi effectivement ci biir philosophie mhm. science politique boy xol ay mhm. philosophe pratiquement ñoko créer ba mu dem ba doon euh, euh, matière bo xamanteni matière bu indépendante donc c'est vraiment lié amul amul différence donc boy def philosophie forcément tu t'intéresses euh, effectivement à la politique ba tax na philosophe bo gis très souvent mën na yëngu effectivement ci walu politique ba ci président yi sax dañuy faral di soxla aussi am ay conseillers ñoo xamanteni philosophes ay philosophe lañu ak sauf que nak rew ñu De dañuy japp ni philosophie parce que les yalla té ak <laughs> c'est pas hmm, hmm. parce que Karl Marx hmm. parce que Europe yépp di enfin di di di France Angleterre Belgique fu mu dem parce que comme jean Guy Marius les activistes c'est des penseurs agitateurs Mm-hmm. mais maanaam mënuñu xool injustice di am ñu noppi ci mënuñu xool aussi njuuj ndaj di am si dëkk bi ñu noppi ci mm-hmm. mënuñu xool aussi koo xamante ni da nga yor pouvoir di dóor di def lu la neex euh, ba tax na donc réew yi nga xamante ni yëpp dictature dafa am généralement philosophie dañu leen tëj mbaa ñu rey leen mbaa ñu dàq leen euh, effectivement loolu la ñuy wax ne mënuñu rester vraiment euh, silencieuse par rapport ak li nga xamante moom moo di wala boog insensible face à certaines situations bu ñëwee ci yaa politique ak philosophie mais politique Sénégal tey dialogue la ñuy waxtaanee ñu ngi ci war a jëm ci ay élection démb ay dogal wadd na ci ay proposition la ba léegi parce que ay conclusion la ci wàllum euh, date bi ñu jàpp ñaari fan ci juin euh, en tant que analyste politique euh, ban jàngat saytu nga def ci li nga xam ne moo di la situation maanaam li xew jamono ji ci sunu terrain ci landerneau politique bu Sénégal. waaw loolu aussi booy xool vraiment du loo xamante ni daanaka lu ñu bett la. Mm-hmm. ndax tamit xam nga àdduna dafay dox. Mm-hmm. te Sénégal tamit dafa yàgg dox ak àdduna bi. Mm-hmm. boo xoolee jamono Senghor. Euh, avant amul won sax ay parti yu melni parti unique la c'est mhm. Senghor daf fi nekkone aussi lu ko neex la def parce que nit ñi bëri jànguñu mhm. amul won aussi cette liberté d'expression bo xamanteni aussi amoon na fi amul won mhm. ay chaîne internet ak yooyu yëpp amu fi woon euh, chaîne rek mo fi nekkone moy chaîne d'état ben parti mo fi nekkone moy le parti état c'est bu mu défé élection yi les premières élections au Sénégal en 1900 euh, pratiquement 80 en 1963 élection mhm. yooyu c'est moi qui gagné à 100 mhm. et à l'époque y avait y avait pas de comment ça s'appelle encore y avait pas de y avait pas d'opposition mhm. 68 euh, Senghor def élection un mm-hmm. report bu 67 bi Senghor gagné aussi également à 100 mais nga gis nga fofu yépp ben parti qui kon ci dëkk bi 78 mm-hmm. mm-hmm. lañu vraiment le jeu politique ba nga xamanteni am nañu pratiquement deux partis jamono aussi di dox tay Sénégal ñu toll situation bo xamanteni ni jeunes yi euh, ñi jang bari nañu euh, information aussi mi ngi circuler jeunes yu bari am nañu information am nañu la conscience politique conscience politique bu ma ko texte ci wolof dama naan am nañu manam politique

Hein, euh, parti Cheikh Anta Diop euh, parti Majmoud Diop. Mhm. exactement parti unique. djel ñi nga mhm. xamanteni opposants yi bi motax li j'appelle ça une méthode senghorienne. Mhm. té méthode malheureusement beaucoup def si jamono fu mu donc da ngay duggal réew mi ci guuta da ngay duggal réew mi ci fitna ak ci tension ndax aussi jamono yi donc évoluer Sénégal ñu ci situation ñu dañ ci ci météo naka nga ñuy analyser fi ñu jëm ndax su ma jumut le 4 juin euh, le 4 bokk autant pour moi euh, li nga xam ne moom moo di kon mars bi euh, daañu am li nga xam te moom moo di ay xibaar ci jóge ci njiitu mi ginnaaw bi nga xam ne jot nañ note bi ci conseil des ministres maanaam 4 mars lañ altine incha allah moom président de la république dina jébbal jot li nga xam ne moo di rapport yi nga xamante ci ab audience la leen di dalal ñi nga xam ne ñu doon ëngamloo ba proposer date bi bu ci noppee nag article 92 may na ko sañ-sañ mu daal euh, saisir conseil constitutionnel maanaam day chatre mi ci xalaatam ci lu ni mel lata muy fixer date bi bañu ñu doon defal ab euh, météo ab geussu ci fiñu jëm ci situation fiñu tollu ni lan nga ñuy wax. waaw li yëpp euh, indi moy limu mu la wax nii léegi rek c'est-à-dire que politique da fay dox te dafa mel suñu jiite réew yi aussi amuñu analyse bobu di mhm. dox ak jamono di dox ak politique nu muy doxee. Mhm. ndax bi Macky Sall defee son jeu manam dem ba éliminer parti éliminer tas ay parti éliminer mm. les plus le ñuy wax l'opposition mm. euh, l'opposition classique mm-hmm. xam nga waxoon na ko au tout début mu yëg mm-hmm. ne na je vais euh, réduire l'opposition à sa plus simple expression mm-hmm. waaw mooy manam dinaa fexé ba danaka ñi ñi nga xamante ñoy ñooy politique bi da nga japp ne da nek ci logique bobu ba logique bobu la té malheureusement logique bobu mo ñu indi ci guuta ba ñu ndax bi mu rayé l'opposition euh, classique qu'est-ce qui s'est passé dafa am lu ñuy wax opposition radicale bu judd moy opposition boo xamante ni effectivement ñooñu seetatuñu dara mayatuñ ko dara. Mhm. loolu mo duggal effectivement réew mi ci guutu mi. Mhm. te boo demee nga gis ni sax bi mu démé bay euh, reporte élection yi aussi. Mhm. bay xol également loolu moko waral. parce que limu jortone té jamono comme ni ko waxe jamono fay dox. ndax fogon ni na juge yi daañu ànd ak moom ci bëgg-bëggam. ndax loolu mo doon moo temps wu temps wu Senghor Senghor day bind rek juge yi appliqué. def loolu ak temps wu Abdou Diouf ak yooyu. mais légui jamono day dox. ba tay ji am nañu conseil constitutionnel bo xamanteni deugër na deugër bo xamanteni li président namone ci carte politique am. ak li constitutionnel feeñal mhm. dafa am lo xamanteni daf ko ci bett mhm. donc yépp yëpp mën nañu ko si jàngat ba nga xamanteni ni tey jii booy xool sax mu amoon opposition classique bi moo ko doon gënal tey ñi nga xamanteni ni ñoom la jàkkaar lool mhm. muy ñu su mel ne ñoom Diomaye ak ñoo xamante ni c'était euh, c'était des opposants qui n'étaient pas euh, prévisible mais enfin qui n'étaient pas euh, mën naa ne njortuñu woon que ni ñu mel noonu dañu génni voilà dañu percer vraiment ci langue ci langue politique bi lii nag moo tax mu waral donc mu moo indi si sama njort. Mhm. lu tax mu euh, report élection yi. Mhm. mais report aussi daf ñu duggal ci situation bo xamanteni tay ji mhm. amul kenn ko xamanteni ni mën la wax de manière ouverte. fa nga xamanteni fa la réew mu jëm. parce que euh, tout dépendra si kuje kuje bi aussi duñ koy jëlé population bi duñ koy jëlé conseil constitutionnel aussi yan dogal. effectivement lay amal. mo tax sax d' ñu war ñu ñu def dialogue bi.

ban jàngat nga def ci ñoom it seen taxawaay ndax souvent it leen seen jàngat dafay gën a féete boor lañ koy gën a gisee euh, ci critique boo xam ne mi ngi dem ci euh, les tenants du pouvoir ah. les journalistes politiques je vous taquine un peu euh, ñoom aussi seen comportement ak seen wàllu gor lan la ñoom waa ku jegi waaw ku jegi waaw gis nga dialogue bi euh, man dama que c'est faussé dès le départ parce que terme termes utilisé d'accord Parce que ñoom on woon a dem aussi hmm. waroon nañ dem parce que dialogue man dama jàpp ne dialogue c'est quelque chose de tout à fait normal dialogue lu dialogue, dialogue mooy d'ailleurs ça, j'ai nañu changer terme bi ba di indi ay concertation mais c'est la hmm. même chose hmm. dialogue mooy waxtaan Donc, euh, euh, effectivement waxtaan la mais waxtaan bi nico président organisé c'est ça qui a posé problème Je mën nga def waxtaan mais nga vraiment ce sont les ce sont les concernés ce sont les concernés nga oo les 19 ñu toog ak yow nga xool seen anam la ñuy waxtaanee. te mm-hmm. waxtaan bi aussi c' était pas jaru muy muy gudd wala muy compliqué. ma mm-hmm. nga def rek jàpp dat la. Mm-hmm. loolu président moo na ko def moo na oo effectivement les candidats gars yi def ko. mais dafa indi benn concept boo xamante ni d'af, dafa ma jaaxal mooy dafa ne consens le dialogue euh, un dialogue politique consensuel. loolu mënul nekk. consensuel mooy lan. mooy loo xamante ni ñëpp dañuy toog tënku ci mbir mais loolu en politique c' est impossible. Ah démocratie par nature c' est la divergence dans mooy démocratie mm-hmm. démocratie mooy divergence mm-hmm. euh, consensus mais aussi am si régime yoo xamante une dictature moo fa on mm-hmm. maanaam koo xamante ni moom mooy yow suba teel dogal ñëpp ànd si wala monarchie mais euh, dans une démocratie il y a jamais effectivement de de de consensus donc c'est déjà biaisé dès le départ mais le dialogue euh, lu mën a lu si ci réew dans une démocratie parce que seconde guerre mondiale sax hein, m'a ko maa ko wax keroog si waxtaan la mujj généraux allemands yi dañu doon waxtaan ak les généraux anglais gis mel ñom ñoom Rommel ñoom Montgomery ñoom Brad euh, euh, Omar Bradley ñom ñep dañu doon toog di waxtaan et pourtant ils étaient effectivement en pleine guerre mm-hmm, mm-hmm. donc waxtaan euh, c'est quelque chose d'essentiel mm-hmm. mais ci ban anam la ñuy waxtaanee ak aussi waxtaan bo xamanteni finalement lu muy jur donc loolu moy question bi si ko xamanteni aussi oote na fi quatre waxtaan daanaka mujjul fen hein? bi mooy wa wa wa bu exactement c'est du c'est ça le hein? problème ñom ñep hein, ba ci 5